ñu leen di jaajëfal mbokk internet ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen dalal jàmm ci seen ëttu xibaar ñu ñëw ak ci li gën a fës ci euh, xibaar yi njàkk ne ak tiis la nappkat yi nekk fële ci thiaroye sur daal di am rek ginnaaw bi nga xamante nii ab euh, jàngoro bu euh, doy dal na leen foofule ñoom nag dañoo toog rek gis ay picc yu génn ci seen i yaram affaire Diop Iseg mu mel ni rek bruit bi mu ngi gën di yokk ginnaaw bi nga xamante ne nii am na quelques ñagas di Aïssatou Seye di nekk euh, soxnaam moom naka la mu euh, xamle ñoom Diop a euh, mooy ki di Aïssatou Seye di daf ko teg dil ak waa VOA ngir mën rek euh, nangu euh, këram bokk na itam ci révélation yi nga xamante ne moom la Diop euh, Isaac daal di def di wax rek ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Dieyna Baldé day wax rek ne test ADN mosuñu ko def ngir xam ana kan moom moo di baayu doomu Dieyna bokk na itam ci li gën a ci xibaar yi révélation yi nga xamante ne ki la di ay Ndiongue daal di rek def di wax rek ne ki la di Abdoul mbay def ko rek lepp cinq cent millions maanaam genn wàllu milliard te boobu ba léegi nag delloogu ko coronavirus fi ci euh, Sénégal mu mel ni rek tey ci àllarba bi fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre Sénégal amati lu yemook fukk ak juróom ñaar cas yu ñeel wàllu coronavirus mu doon nag juróom ci contact cas importé amul a fës ñu ngi noonu ñu ci jukki xibaar daal di koy tàmbali bi nga xamante ni nii moom la nappkat yi nekk fële ca Thiaroye sur Mer daal di am ginnaaw bi nga xamante ne nii bu doy waar daal moom moo leen daal ndax it rek la ñoo xëy rek ab bés gis ay picc di génn ci seen yaram mbir mi nag daal leen ëpp euh, loxo ñu daal daw rek dawandoo ci district sanitaire ba ngir rek mën faa ut euh, wallu jàngoro jooju nag jàngoro yi euh, der la maanaam dermatologique boo xamante ni bu ñu moytuwul daal mën na affecté askan wi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo foofule ñoom nag la ñu jàpp rek moom moo di ab bato daal moom moo sànni sa géej gi ay liquide toxique yu leen yóbbee feebar bi nga xamante ne ni moom la ñu am te muy génn ci seen yaram feebar boobu nag mu ngi tàmbali si ñoom ginnaaw bi nga xamante ne yenn ci ay nappkat dem nañ ca uh, géej ga daal di nag laale ak uh, liquide boobulee mujjee nag am jàngoro ji daal di koy nag wàll seenu jegeñaale ginnaaw ba ñu uh, ñëwaatee ngir moytandiku nag feebar boobu di gën di law fële ca caare sur mer la ñu wax rek ñu ne di ay kat mooy rek ñu bàyyi rek fii ay jamono demuk géej gi affaire Diop ISEC ak ki nga xamante ne moom moo di soxnaam di Aïssatou Seydi mi ngi continuer def ay bruit ginnaaw bi nga xamante nag kii la di Diop euh, Isaac génn rek daal di wax ne kii la di Aïssatou euh, Seydi en complicité avec euh, ko rek bëgg a teg pour génne ko fi nga xamante ne moom moo di këram fële ca Sacré-Cœur 3 la beste mbir moo di kii la di Aïssatou Seydi ginnaaw bi mu jàkkaarloo rek la mu leen xamal rek mooy reconnaître dina que ni kër googu noonu en question dañ koo jëndee ak ay chèques yoo xamante ne ni chèque wu la Isaac nag nekk école bi nga xamante ne ni kii la di Mamadou moom moo ko euh, moom moom Diop ISEG nag la mu euh, xamlewaat rek moom mooy ordonnance substitution bi nga xamante ne nii moom la Aïssatou Seye di am valable ndax nag bu ñu saytoo euh, code de la famille waaye dencante mënut dàq keneen ci a këram tànk rek ba tey ci buumuk mariage ba tey Diop ISEG ak ki nga xamante ne nii moom moo di Zeyna Balde nag ba mu jàkkaarloo ak yéen suñu naataange taskati xibaar lañu ko laaj moom mooy fan la toll ak histoire nga xamante ne moom moo di Zeyna Balde lab leen leen tontu rek moom moo di histoire boobu elle est déjà classée waaye nag beneen laaj bi ñu ko laaj rek moom mooy ndax reconnaître na paternité euh, doom bi nga xamante ne moom la Dieyna jur moom nag lam ca xam ne rek moom mooy waxoon nañu waxi test ADN mais euh, ba tey jamono ji euh, mosuñoo def ab test ndax it nag li di Dieyna moom moo nanguwul sax daal di koy def te moom nag il a été toujours catégorique ci décision bi nga xamante ne moom la jël ak position bi nga xamante ne ni moom la jëloon moom nag mu jàpp ne loolu bokk na ci li tax mu gënoon na yàgg sax fële ca prison waaye nag euh, histoire bi nag du tee rek dina jàppale xale boobu noonu sans problème comme ni mu ko doon defee rek ak ki nga xamante ne moom moo di Dieyna euh, na it nag moom euh, mosul am problème mu loolu waaye nag jàpp na ne rek xew-xew boobu wala boog histoire boobu mu ngi ci ginnaawam. bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi mbiri coronavirus fi ci Sénégal àllarba tey fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru novembre mel ni rek kuréel gu ñu wàllu wér gu yaram fi ci réewum Sénégal rek ci euh, juróom-ñaari téeméer ak juróom ne ni moom la ñu amal fukk ak juróom-ñaar ñoo ñëwaat positif ñeel wàllu coronavirus mu doon nag ab taux de positivité de 2 virgule 16 pour cent juróom-ñetti euh, cas contact benn cas importé enregistré wuñu ko ci euh, dëkk bi waaye nag am nañ lu tolloog juróom-ñeenti cas communautaire cas communautaire yooyu nag fa ñu ko saytu moom moo di Dakar Plateau am si ñett Almadi am ñaar Guédiawaye Mbour Pikine ak Thiès bu ci nekk am ci benn wàññi nañu itam lu yemook fukk juróom-ñett ci ay patients yoo xamante ne hospitalisé woon nañ leen ñu mujjee leen contrôlé négatif daal leen bàyyi ñu dem ndax dañoo amee tan ñett ci ay nit ñoom ñoo nekk fële ca euh, Sowétas ni ki démb ci talaata bi benn bakkan rotul ci jàngoro coronavirus mu mel ni nag ba fi mbas mi euh, duggee ak léegi wàññi nañu yem fukki junni ak juróom ak ñaar fukk ak ci ay yoo xamante ne ñun totalaale ak jàngoro yi coronavirus ci ñoom nag fukki junni ak juróom ak ñeenti ak fanweer ak ñoo ci amee tan ñetti téeméer ak ñaar fukk juróom ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan ak euh, juróom benn fukk ci ay nit yoo xamante ni ba tey ñu ngi ci loxoy docteur kuréel gu ñu dénk wàllu wér gu yaram fii ci réewu Sénégal di dellu rek ñaax askan wi ñu sàmmoon sàmmonteeg ndogal yi ngir ànd xeex jàngoro yi coronavirus. waaye tey itam bokk na ci euh, xalaat yi nga xamante ne moom la euh, kii di Oustaz Iran Ndao daal di joxe rek ci phénomène bi nga xamante ne moom lañ saytu jamono ji te moom mooy rek Barça wala Barça Oustaz Iran nag la mu jàpp rek mu moo di ndaw yi nga xam ne dañuy jël mbëkk mi di dem rek fële tugal xaruwuñu benn yoon nag koo xam xamante ne ni xëy na euh, waajuram bu jigéen wala sax njabootam añuñu reeruñu maanaam dañoo euh, ñaax situation bu mel noonu rek daanaka ndaw yi àttanatuñ ko moo tax rek ñu dugg ci gaal yi daal di rek uti waaye nag xaruwuñu benn yoon Oustaz Iran rek leeral la mu indi rek moom moo di xaru euh, yéene la maanaam intention la gis koo xamante ne ni dafay am yéene xaru waaye ñi nga xamante ne ni dañu ngir uti ñooñu xaruwuñu benn yoon dañu uti rek loo xamante ne ni mën nañu ko teralee seeni waajur bokk na itam ci la xam xamle waat moom Oustaz Iran Ndao moom mooy rek wax ji bëri na nañu xool rek nañu saafara mbir mi ngir mën a jàppale ndaw ñi ñu tëjee xibaar yi tey rek moom mooy révélation yi nga xamante ne ki lay di Aïda Ndiongue nekkoon ancienne sénatrice ak maire des HLM daal di euh, def rek tey wax ni rek ci ay jëmi jamono ki lay di Abdoul Mbaye daf ko wowoon rek di ko ab ay dërëm yu tolloog ci cinq cent millions maanaam genn wàllu milliard moom nag Aïda Ndiongue la mu xam ne rek moom mooy di affaire bi mi nga am ci atum 2007 ci la ko Abdoul Mbaye woo rek téléphone daal di koy leb xaalis yooyu tey wax rek ko ne ko dafa bëggoon jënd ab uh, immeuble moo taxit rek mu woo ko di ko ab xaalis yooyu ci la ko Aïda rek daal di wax ne moom bett na ko loolu ndaxit nag mënu nekk clientam ci banque bi nga xamante ne moom moo fay nekk directeur maanaam Abdoul Mbaye uh, ba pare daal di koy woo di ko ab xaalis yooyu ndaxit nag moom Aïda la mu jàpp rek moom moo di du toll ni ab directeur banque warul mun a xool ay compte client am ba leen ba ko ci mën woo rek di ko laaj ay xaalis mu mel ni rek loolu dafa xaw a ñagasal seeni diggante jamono ji ndaxit nag Abdou ba mu defee rek demande boobu ki le di Aïda Ndiongue lam ko tontu rek moom moo di rek du ko àll benn yoon ay xaalisam ndaxit nag jàpp na ne ab directeur banque warul mën a taxawee noonu ay jëmi jamono nag ki nga xamante ne am ni Abdoul ñu far ko premier ministre mu daal di rek yëkkati jéego ngir mën a rek venger wu ci ki nga xamante ne moom moo di Aïda tout cas loolu laa xam la tey wax rek ne moom du la première personne boo xamante ne ni kii di Abdou Mbaye def na koo jëf jooju ndax nag ci ay jamono na ci problème Abdou euh, na ci mu tëjee ay kàddoom rek di wax ne rek kii rek di euh, Abdou Mbaye mënul jiite ab réew ndax nag il euh, sans morale nit mënut a taxaw ne ab cadre banque la ba pare di lépp ay client am mbokk internet yi foofu lañu jaax rek daal di ndar képpi xibaar yi bi canta ngërëm ñeen ñeneen ci ànd bi ngeen ànd ñu ci sans limite di leen jox dalu jàmm